waaye la ci gën a doy waar mooy kër googee ñu ko amaloon nee ñu kilifa gu mag a mag la ca dëkk ba kilifa gu mag la ca dëkk ba ginnaaw bi dem na ci sëñ Mountakha ba ko sax nee ñu sëñ bi it masawu ko ba noppi ñanal ko waaye nag mi ngi wéy di amal enquête ci mbir ma ñaari suspect yi nag ñoom la ñu te daal ñoom wala boog ñaari nit ñii la ñu suspectgul ba ca ka njëkk mooy ak ko nga xamante ni sax ab takk der la ab béret rouge la waaye ci kër ga la dëkk ndax moom képp fi ne mooy fanaan ci kër ga ak beneen xale bu jigéen boo xamante ni moo koy toggal di ko indil